da nga koy perte transformation économique bi nga soxla doo ko am sa croissance bi nga soxla doo ko am parce que doomu réew mooy tabax réew boo demee dëkk yi mel ni uurul xelkom biraan mbadaxun faas ngàcc de panal wolof njaago mbos daara mbos gañik ngéelo ñoo bokk benn jàmbat ci flex eau prix ndox bi euh, mètre cube bi moo ngi jógee de cent cinquante dem deux cent cinquante il en avec les facteurs bimestriels ñu ngi ci souffrir bu baax a baax a baax ñi nga xam ne dañuy sàmm mënatuñ tax njox ndox seen jur yi bëgg naa nga bàyyi ci am ah, tëgg njaag nag benn koñ la quartier bu géngi new bu yàgg te géngi new nee naa leen dans les c'était dans les années 60 ñooñu ba ma nekkee xale ba tey ñu ngi jàmbat ndox mënuñu am ndox bu weesoo loolu bugg naa nga def ñu def audit programme gestion des eaux pluviales c'est vrai def naa ay évolution yu bari bari am na man ginnaaw raay xam naa ci dara mais mu ngi am pollution ba tey te comme ni ma ko wax gestion des eaux la ñuy wax pluviale rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme ndox moom war nañ ko mën a soxla pour dem ci euh, mbay mi ak sàmm bi ak yooyu